à l'instant maître El Hadj Diouf euh, voilà moom ngeen doon gis noonu mu nekk ci foule bi di en tout cas bokkoon na moom aussi si ñi nga xamante ni ñu nekkoon la au devant de la scène di wane ni ànduñu benn yoon euh, ci boobu les projet de loi donc euh, il est là notre invité Fadel Barro mi ñu doon leen annoncé depuis tout à l'heure il est là donc ñu daal di koy rek nuyu Fadel bonjour. Bonjour, Assou. Et bienvenue. Ah euh, ben merci et je m'excuse de ce quiproquo. Mm -hmm. J'ai cru que l'émission devait démarrer à, à 7h30 au lieu de de 7 heures. Donc, euh, J'espère que les Sénégalais seront, les, les vont être indulgents. <laughs> Je l'espère aussi. Alors, euh, voilà, nous allons tout, euh, tout d'abord démarrer parce que gis nga tout à l'heure élément bi nga xam ne jàllale nañ ko. Mhm. mu nekkoon euh, jour bi nga xam ni nit ci génn nañ surtout mouvement citoyen yi politique amul benn en tout cas catégorie confondue ñëpp génn pour lan pour wax non au projet de loi bi nga xamante ni le président de à l'époque Abdoulaye Wade moom moo ko bëggoon a introduire euh, tey ban sentiment euh, la lay la lay euh, toogee neuf neuf ans après di seetaanaat événement boobu. mais à chaque fois bu ñu koy xool on le regarde avec beaucoup d'émotion dañ ciy dem ak xol buy bu buy yëg tempérament ak chaleur de la citoyenneté de la citoyenneté constructive de la citoyenneté active sénégal yëpp jub ñëpp nekk benn benn bopp benn say pour fexe naka la ñuy seen démocratie gën a jëmee kanam. Mm-hmm. donc euh, loolu mooy li nga xam ne moom moom la nga njëkk yëpp yëg aussi sa xel dina dem ci ñàkk seen bakkan si jamono jooju. c'est extrêmement important de la rappeler. Mm-hmm. tey bu ñuy fàttaleeku day mel ni lépp neexoon non. 23 euh, juin benn date la benn jour la bu important bu symboliser tout la lutte qu'il y a eu presque de 2006 7 sénégalais yi di jug di def ay assises nationales di def lu nekk pour préserver seen démocratie parce que amoon nañu régime boo xam ne bu ñu jugee ci euh, alternance 2000 avec beaucoup d'espoir petit à petit petit à petit ndànk-ndànk lañ doon xaar ci alternance sur 19 mars 2000 bi dafa nekkoon di dévoyé wu di niru leneen. Mm-hmm. bu ñu dem yu bëree bëri seen ñuy désacraliser institution yi dëkk bi di gën di dem nit ñi di gën di jaaxle. xam nga ay bradage foncier yi corruption yi nit ñi dañ koy fàtte euh, yenn dépenses yu dispendieuses yi ba pare euh, nekk ay dépenses de luxe à l'époque comme par exemple monument de la renaissance ci jamono jooju boo ko delloo ci contexte am mm. yooyu noonu yëpp di dem di engrangé wu ay coupures ay ay ay de hmm, flambée des des des denrées de première nécessité mais en même temps seen rareté ñuy dem di am ay pénuries lu musul am Sénégal ay pénuries de gaz ay pénuries ndox tey jii nga gis lépp mi ngi ñëwaat neuf ans après boo koy xoolaat. après da ngay taxaw nga la laaj sa bopp lan la lan la naka la sénégalais yi kon si jàppee 23 juin démb su guddi maa ngi ciy xalaat depuis nga ma woo may seetlu di sama xel di dem image di ñëw. Hmm. image yi di ñëw rek léeg-léeg nga jooy parce que xel bu demee si Mamadou Diop à travers la personne de Mamadou Diop neuf personnes yu perdent seen vie si jamono jooju yëpp. vous n'êtes pas déçu vous n'êtes pas déçu. maa ngi ñëw maa ngi euh, ñëw euh, comparaison parce que daf ci am ñaari pàcc. Mm-hmm. benn bi mooy lan la politiciens yi def événement wu 23 lan la acteurs politiques yi def beneen bi mooy naka la sénégalais yi jàppee 23 juin da ngay seetlu ne bi ñuy def le 23 ñu ëppoon ci organisation ya fa teewoon parce que du yëfu Y en a marre du yëfu euh, M23 du yëfu parti politique du yëfu ket benn nit yëfu sénégalais yëpp la waaye da gis ne politiciens yi dañu def lu nekk ba ñu fàtte le 23 parce que acteurs yi fa ëppoon keroog ci jamono jooju tey ñoom ñoo nekk au pouvoir ki ci njëkk mooy le président Macky Sall ku ci topp mooy président assemblée nationale am ku ci topp moom mooy président aujourd'hui conseil économique social et environnemental parce que Aminata Tall mu ngi woon ci parti socialiste à l'époque muy représente tout le parti socialiste donc l'AFP aussi boo jëlee assemblée nationale boo xoolee institution yëpp tey la ña ca nekk ñi ngi woon taxaw ak ñun le 23 juin mais ñoom ginnaaw bu ñu jotee ci nguur lan la ñu def pour que le 23 war a nekk benn bés exemple war a nekk benn bésu référence non pas pour ñun mais mu nekk référence par rapport ak génération yii ñëw mm. nànk-nànk ba nga xam ne dinañ fexe ba seen dëkk ñu am bës bu ñuy fàttaliku di ko gundaandaat ndax bés boobu ñëpp a taxaw nekk benn ñëpp a taxaw sauver seen paix sauver seen jàmmi réew sauver seen démocratie ñoom lan lañ def dara au contraire dañu fexe ba nit ñi fàtte le 23 juin mosoo gis pouvoir régime bi fi nekk mu ñëw le 23 juin jege si mun a ñëw la xool qu'est-ce qu'on fait nan la ñuy def fa mu nekk bés boo xam ne sénégalais yi dañ ko fàttaliku pour à chaque fois que seen institution yi menacé wu ñoom ñu ñu sauvé ko au contraire qu'est-ce qu'ils ont fait ils les ont fait ranger aux oubliettes dañu fexe ba sénégalais yi di ko fàtte ñuy dem ndànk-ndànk duñ ci wax duñ ko commémorer duñ ci def dara ci ci ci organisation mais aussi ci jëf parce que jëf yi ñu teg ponk yi ñuy teg benn benn boobu ba léegi boo ko xoolee moo lay wax moo lay tax nga comprendre lu tax parce que ñoom dañuy def la même chose que lu Sénégal yi doon bañ le 23 juin ak si jamono jooju boo jëlee loi yi ñu fi voté benn am na ci yoo xam ne benn bu nekk moo na provoqué double 23 juin. loolu par exemple la loi sur le parrainage. Mm-hmm. ñu xëy forcé ko nit ñi gis nga élection yi aussi nu ko parrainage bi forcé gis nga mode bu ñuy choisir suñu député parce que jour 23 juin boo koy tekki lan la mooy bés bi nga xam ne askanu lëmb dafa jóg. ne député yi ma jox teg assemblée nationale représenté wuñ ma nu ma ko foogee man maay légiférer sama bopp sénégalais yi ñoom ñoo voté seen loi wu bopp arrêté projet de dévolution monarchique du pouvoir bu Abdoulaye Wade mais loolu boo xoolee tey jii ñoom nañ ko nësaxal def nañ tout parce que def nañ ay loi jël seen police renforcer ko d'une certaine manière lu ñu investir ci euh, conserver le pouvoir investir ñu ko pour que sénégalais yi yeewu ñoom ñu mën a conserver seen stabilité ak seen régime loolu mooy parti politicien yi ils l'ont fait ranger aux oubliettes mm. ils ont dévoyé le projet du 23 juin ils ont tout fait pour casser dans les imaginaires des Sénégalais maanaam ni ñuy xoolee ak ni ñuy gisee ñu fexe ba génne ci et ça vous a en, euh, en quelque sorte dissuadé vous les mouvements citoyens non au contraire et moi à face de cette attitude bu politiciens yi am vis-à-vis du juin da ngay xool sénégalais yi ñoom nan lañ jàppee 23 juin à partir de cette date la jeunesse sénégalaise daf ko jël def ko li mu ko war a def mooy mu nekk exemple xoolal depuis lors xoolal depuis événement wu ay Y'en ay 23 juin xoolal depuis ñaata mouvement citoyen nga am biir Sénégal ak ci biir Afrique jeunesse africaine yëpp dañu ko ñëw accaparé wu approprié wu ko jël ko seen bopp continuer di xeex malgré conditions yi difficiles yi malgré que les peuples souvent duñu suivre malgré malgré que malgré que ils sont là malgré tentative de diabolisation yi malgré luñ ciy wax yëpp leen traité policier ak yëpp jeunesse africaine bi ak jeunesse sénégalaise bi particulièrement ils sont là depuis lors da ngay gis benn foisonnement benn nouvelle dynamique de citoyenneté et même d'engagement politique jeunes yi dañu commencé approprier wu seen histoire jël seen destin ne désormais ñoo koy bind. mais par exemple si je mhm. de Y'en man mhm. foofu laay waxee. Mhm. par exemple depuis dañuy gis que ni ak nu mu munti mel les Sénégalais ont vu que cote de popularité bu Y'en a amoon. Mm -hmm. en 2011 c'est complètement différent. Euh, de de de bi mu am nii actuellement en 2020. boo jëlee. loolu sax man du ma ci d'accord. est-ce que du yéen tamit da ngeen mel ni da ngeen commencé bàyyeeku. ci ci xeex mi maintenant on entend plus ay aar lu ñu bokk ñoo lànk et euh, ces mouvements là qui sont peut-être similaires même ak. Euh, Y'en a marre mais vous. xam nga euh, koy comprendre moo tax ma ne bu ñuy dépersonnifier dépersonnaliser débat bàyyi ak di dindi turi institution yi nga xool dynamique citoyenne ak dynamique sociale bi ni muy demee au contraire da ngay am satisfaction.